ko ne ko lu koy def mu ni ko xanaa nga jox ma sa bopp kon nag fattaqullah wa yuallimukumullah waaw gis nga jàng ba yey téere yi fu ne nga dugg fa am kilifa te tënku ci li nga war a tënku xam sa bopp yàlla jàngal la lu kenn xam waaw waaw ba tax na kon nag dama waxoon ni duma leen retenir lu yàgg mën naa continuer sax parce que mën naa ne laaluma sax deux pages ci waxtaan bi waaye ku jur yërëm soreegul waaye comme suba ci bëccëg bi dangeen bëgg mu am waxtaan moo tax ma bëgg ko simplifier rek ba suba ma wax leen يننتبي كلي كو يالا تد وما ارسلناك الا رحمه للعالمين في منك نبي الرحمه فن في منك روح الرحمه فن في منك نفس الرحمه فن في منك عين الرحمه فن ننتي دا فاي لاج نو خام كو بو تي نيكيت فونكسيون بي كي بان فاصون لاي فاغ اك نوكو نيت دي ييغ que gis nga discipline lu am solo la parce que léeg-léeg di de def nit lu dara jarul mu ngi dellu ci maanaam li ma leen doon wax ci ni xam-xam kese kese bu fekkul yàlla may la nga am loo tënku xam-xam ba lam lay gaañ moo ëpp dafa am benn sëriñ

ci waxin bi rek mu ni ko génnal kër gi mu defe ni day kaf mu ni ko doo fi yendu mu ni ko lu tax mu ni ko yenent bi nga manqué respect ndax sa waxin nga bëgga a wan ni importance bi ñuy jox yonent bi amu ko mu ni ko te mel noonu kenn du ko waxee sama kër di fi yendu pour wax la di teey ba ci waxu kaf sax boye boo nga di ko seet waaw walla nga wax dara dafa ni kaf la mu jur lu nga xam ni danañu daj lu ne pour réparer ko waaw di dal ba dal ilimaan ilimaan du nga xam ni la mu xam ëpp na la mu jàng ëpp na نخايو باتم بوي جيتي في نيت ني دانيوي جوي موي جيتي نيت ني دي جانغ سورة الأحزاب نيو بكي آية بسستي إن الله وملائكته يصلون على النبي ميامتا آية با ني سي با لابين بور موي جانغ إن الله وملائكته naka la sëlmal ñu ni ko joxeel ñaan ñu gis ko muy def nii ñu naan lii lan la lii lan la nekk yàlla dagg na waxam ñu wax wax mënatul kàddu gi mënatul jóg ndax rekk le fait mu mel ni ku yéenewul yonent bi بيم تي فيرس بالي سان بور اوتان مو ان انشن اك ان الله وملائكته موي تخ نك دي تاي باخ باسكو لي لي نغا سامبليفي دارا فك سامبلون وا كو ديفي يو مل نون نك ديسيبلين يويو بو سوبا ان شاء الله نو ديم تي وقتان ايتام لي نيو مينون موي غامو يي نيت ني فنان بو سوبا مي جاروكو ñaari baat ak ñetti baat rek ñu barkeeloo ko ci barke yonent bi sallallahu alayhi wa sallam di ñaan leeram fu ñu nekk mu di fa fekk martabaam fu ñu nekk mu di fa fekk daa am na lu nga xam ni kenn mënu ko jënd hmm? te mag ñi dañu baax gis nga boo amee kilifa te ñu branché la jamono bu nekk lii lay jariñ dafay mel ni dañ la ciy téléchargé waaw man burdu moment bu ne ak bayti bi may sentir damay jékki-jékki rek di ko répété te duma xam lan la waaw waaw waaye jamono bii dañu ma wax ni nañuy répété ولن يضيق رسول الله جاهك بي إذا الكريم تحلى باسم منتقم ننكوي بامتو ci jamono bii ndax am na yoo xam ni mu ngi ñëw yàlla ngi ñuy musale ni nag waaye itam du tax ñu dal xel waaw te dama mës a dégg ci góor gi bés mu ni ma Moustapha ma ni ko waaw mu ni ma Sénégal gii ma ni ko am ah. mu ni ma bala ñu ko man defar ma ni ko am ah. mu ni ma lu rëy lu ëpp nit ñi wàcc fi ba noppi genre apocalypse waaw et pourtant moom mi koy wax ndeysaan bu doon wàccit mooy gën a sonn ñëpp ndax lu mu xam dana ko def pour intervenir parce que ñoom dañuy xex ak yàlla waaw du fi wàcc la wax waaw mu ni dana ko wàcc ñu nu ko ay waaw bu ko defé yii fi xëccu bi mo gi yàlla xam ne rek ndaysan ak mbaxam xam nga xam nga da fay am lo xam ni di ko comprendre dafay am solo sunu borom yermaneen kenn xamul fu mu akke ji mais isam isam day tax léeg-léeg du tal li mu bëgg a def yépp mu def ko moo tax mu ñaan yonent bi sallallahu alayhi wa sallam muy def benn rôle de substitution ndax comme moom isam may ko mu def lépp ba mu jeex يونت ان يكون هناك ام بوسيبيليتي بور كو دي كوردوني عز بي اك رحمه بي با مو جاري نيت ني تا دو لين غان مو وارال مو اندي لقد جاءكم باسكو خمغا واخنا لين سانك تي ياسين والقران الحكيم انك لمن المرسلين على صراط مستقيم وتنزيل العزيز الرحيم العزيز الرحيم عزيز بوبو موي تاخ بور مو نيو تي رحيم بي با مو جاخ دوكو يوم مو ديفال يونتي بي اون ديليغاسيون دو بوفوار تي عزة بي اك رحمة بي موتاخ لقد جاءكم رسول من انفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم waaye moom sañu ko ci ñëpp bil muminina rek raufur rahim bu yàlla talul ndax izza bi yeneen bi moom dana tal pour xett li jullit waaw kon nag yàlla nañu yàlla taas ci barkeem yàlla nañu yàlla yokkal sutura yàlla nañu yàlla defal tawfiq yal nañu yàlla musal yal na yàlla tett ñépp kenn ku ne ragal yàlla boo ko gis kenn ku ne yal na yàlla ubbil la buntu xéewal yépp ci barke yeneen bi kenn ku ci ne loo wuti moo xam njàng mooy njàng la moo xam projet boo am la moo xam boutique boo bëgg ubbi la moo xam sax sëy boo bëgg a takk la ah am na am na jigéen ñuy wax ci suuf yàlla bu wujju bokk waaw ndeysaan ku ne dal yaa xam bu dee njaboot koo am bëgg leen yóbbu moo xam dañuy war a yokk seen xam-xam wala dañu war a am lu ñuy def pour jàppale la yal na yàlla barkeel yëpp te kenn ku ne loo manquele ci sa diine ba nga manquele ko ci sa jikko ba nga mànkale ko ci sa ngor yal na yàlla jël leeru yonent bi mu sol ko ci yow ba sa jikko mat sa personnalité mat sa dignité mat te loo yootu nga jot ca te coono ba du bare waaw ci barke guddeem gi ak barke bésam bi ndax altine mooy bésam waaw tax na tabaarakallahu barke mag ñu baax ñi damay tooñ bokk yi demb bañuy nek ci symposium bi na dama sol sunu lafa lafa comme you bay faal yi am ku di waw lafa bi nga sol nag ma ko dañ ma wax ni ma fan yi benn mbokk dafa gént may def benn waxtaan ñu gis sunu maam sëñ Touba mu toog ci biir waxtaan wi waaw ma ko lolo tax ma sol lafa bi nak pour saluer pour saluer geste bobu waaw waaye daan na tabaarakallahu eh, li ñu bokk ak yéen dafa bare waaw ah, ci dama ko wax benn mbokk murit ndax dafa am lu ma ko liggéeyloo mu di ma jaabanteloo ma ne ko gis nga ma ko boobu ne ko gis nga fois ci bu tardé mu naa ne ko ma ne ko ah, ah, <laughs> bu tardé bi yoon rek moo koy moo koy réglé <laughs> mu fax waaye amul vingt quatre heures mu rek la affaire bi ma ne waaye baax na ci kat waaw tax na tabarakallahu eh ñoo bokk yépp waaw maam yu baax yépp ñoo ko bokk góor ñu baax ñeeg jigéen ñu baax yépp ñoo ko bokk soo nekki ne si bii dañ ciy waxtaan jamono bu ne ndax moom sang piir la waaw góor piir la garmi piir la wa waaw mu di sama jigéen ci biir ak ci biti waaw hmm. Mhm. ok wallaay ndeysaan aha ah xam naa leeral rek waaw kay merci incha allah dañu wax ni sama mbokku mbokk bi Seyd Mouhamed Mbacke Abdul Wadoud moom moo fi représenté sunu baay ba ci Touba xalif général fa tabarakallahu kon nag ci ñaari jataay ak ñaari toogaay la fi toogee cëru boppam ak cëru kilifa gi ko yónnee Euh, Seyd Ahmed Saloum Diang boobu dem ñu ni dafa ñëwoon ci turu euh, Serigne Abdul Qadir Mbacke tabarakallah Bachir Abdul Qadir kon waa euh, représenté ko mu yónni ko mu war a demaat kaw la mu mel ni tabarkalla ci ni ñu ko jotee ñu ngi nuyu sunu mbokk bopp bi Abdoulaye Diop ñu bind ancien ministre mais il n'est pas ministre il est toujours ministre waaw wallaay ndeysaan waaw parce que ce ministre la seulement pas, waaw ce il bi ci des itam ñu ngi euh, Ousmane Diouf euh, du euh, député bu l'Assemblée nationale Nous ngi nuyu itam soxna Hélène Tine moom itam député ci assemblée nationale Nous ngi nuyu itam sunu mbokk Abdou Birahim Diop di.

ca Saint-Louis di nuyu itam délégation bi nga xam ne ñoo jëgal ci jamiatul azhar dañu toog ni taat bu jot ñuy ñëw di bokk ak ñun gàmmu gi ñu di leen nuyu di leen euh, jaajëfal ci seen teewaay fa tabarakallahu e Ahmed Saloum Dieng tudd nañ ko léegi ba noppi waaw eh, ñu ngi gërëm itam la presse presse écrite bi ak euh, rajo FM yi ak télévision yi rawatina TFM Mourchid TV Africa 7 2STV LCS Walf TV Sen TV RTS ak Touba TV TV ba tax na kon ñu ngi sant ñëpp ñëpp ñëpp ci domaine bu mu mën a nekk fa tabarakallahu ñoom Tijane Giro fa tabarakallah suñu mbokku bopp yi di gërëm itam ñi nga xam ni ñoom ñoo moomal seen bopp yëpp waaye dañ fi am ay gan ñu nga xam ni foog ñu tudd leen sant leen rawatina sama jigéenu bopp bi tabarakallahu mu di soxna Ami Mbakke ànd ak soxna Bintu. ba dëgg yàlla bokk ci kër gi di seet ci sëriñ Cheikh mbakke Gaynde Fatma ñu ñëw tabarakallahu ñëw fekki si guddi gi di gërëm itam suñu jigéen soxna a Ba mu ànd moom it ak délégation bi mu àndal di nuyu itam suñu jigéen soxna a Sow te di ko jaale dañu wax ni dafa am décès ku nga xam ni tey ci bis bi bi mu ñëwee fii ba noppi la décès bi am ñu di leen jaale ci lu mel noonu waaw ñu ngi sant itam sunu wayjuru bopp bi El Hadji Ahmadou Diallo di sunu bàyyu bopp bi di sant itam sunu mbokk Issa Diop nekk ca Dubaay tey taxaw lool ci wàllu liggéey yi di ñu jàppale ci lépp lu nga xam ni def ñuy yiiteel sunu tànt bi ngeen gis bu symposium bi moom moomu moo dem toppatoo commande yeeg yépp vraiment jël yépp dugal ko ci ay conteneur ñu indil ñu ko bu koor jotee tàndarma yi ñuy dogee yépp ci mois bi mook ay wëllëreem yu nekk foofu ñooy jënd ay toni toni tàndarma yónnee ko ci université Ramadan bi bu ma demee du Dubaï lu ne lay daj lu ne lu ne lu ne fa tabarakallahu ñu di ko sant bu baax a baax a baax a baax waaw ñu ngi wax ni itam ñu ngi gërëm Cheikh Ahmed Tidiane Diouf moom itam di député bu Tivaouane waaw ñu ngi gërëm itam sunu jigéenu bopp euh, Rachel Gueye di soxna ci sunu wëllëre bopp bi Sébastien bi nekk ca Paris di sama wëllëre fa tabarakallahu ñu wax ni itam ñu ngi sant soxna May Mbàkke moom itam fa tabarakallahu bu dee Cheikh Ahmed Tijane Diouf bi jot nañu ko wax ba noppi dañ ko bindaatoon bu ko defee tabarakallahu ñu ngi gërëm itam sunu wëllëre bopp bu ñoo tuddee Ibrahima Ndoye di nit ku baax di sunu wóllëre bopp waaye di nit ku amul moroom mu nekk attaché de presse ci Macky Sall mais sama wóllëre bopp la waaw wa tabarakallahu ñuy sant ñi fi daje yépp ci sang yi góor ak jigéen ñi toog ci gannaaw soxna Kiné yépp ñu ngi leen di nuyu di leen jaajëfal ñu ci bokk ci biir fameek ñi ñu bokkal tarbiya beeg ñëpp fàttewuñu kenn yow tollu ku lim sax nit ñi duñ fi jóge waaye kenn ku ne gisal nañ la sunu bopp te itam fa tabarakallahu yàlla moom gis na la yal la yàlla teral ci leeru yonent bi mu mel ni sama mbokkum bopp mi Cheikh Ahmed Tijani Mbeng moom itam fa tabarakallahu duma wax ci moom lu bari ndax lii war na doy tegtal ci ni sama nit la yàlla ñu boole mat na trente léegi wax dëgg yàlla wahab bi nekk ca orkat tabaarakallahu nit ku amul moroom am yitte lool léeg-léeg ma fàtte dara sax ba bi may ñëw ci gàmmu Tiwaawan maa ngi am yu ma fàtte moom laa téléphoné rek ni ko nangam ak nangam dañ ko fàtte fii ci gàmmu gi mu dem toppatoo yëpp bien que dimanche la dem na fexe ba am yooyu yëpp ndeysaan indi ko ñu di ko gërëm di ko sant bu baax a baax di gërëm itam képp ku nga xam ni jàpp nga ci wàllu gàmmo gi kenn desul bu dee ci niveau état bi gouvernement bi li ñu war a def yëpp commencé ko ci Macky ak la mu joxe comme instruction mu jëm ci premier ministre ak ministre yi nga xam ne yëpp ñoom la concerné ay na yooyu yëpp bu subaa ñi nga xam ni ñoo daan jotal yooyu bu suba ñoom dinañ ko jotal wa tabarakallahu waaw waaw dañoo wax ni ñu ngi sant itam ku ñoo wax baara sàll ndax tabarakallahu moom itam jàpp na ci liggéey bi mu mel ni kenn ku ne à sa ni mu war a participer participer na ko ñee nga joxe ay nag ñee nga indi ay ceeb ñee nga indi ay dëwlin

looloo tax kenn gisu ko tey san tey te mom dafa ragal wa bu feebaree rek day defe naa duna tukki na waaw tax mo ngay lo rek naan ma gisoo sama baat bi ni mu changé ma ko da ngay wut pass te wote pass ba noppi nga dem nga dem khutba ji bo khutba léegi baat bi dana réglé moy xàqatay ni ma yow da ma yeb rek ma ne ko waaw noonu rek lay doxe tax na je pense bien que damay faral di tooñ nag ndax man dama def théâtre moo tax waaw léeg-léeg jikko comédien ji ñëw xalifa mbay mi def na lu dara jarul ci théâtre waaw xaw ma sax lu tax muy kii boo ko masaan fekk ba mu def affaire yooyu le rek danga naan xanaat di kii du xalifa ma daan dari <laughs> ak ñoom dem bi faal ndeysaan sama mbokk ndeysaan rek jooy na bu bëgg a dee ci conférence su Thiès ndeysaan ndax yàlla kóllëre googu ba bi muy dem ci daaray Kocc ma ne ko yaa tas daara ji ndax ñun booba théâtre arabe rek la ñu xamoon ñu jékki-jékki ñu ni festival national du théâtre populaire mu ñëw rek indi folklore bi fecculoo xale yi pecc mu nga xam ni taaliba boo ci gis dootoo ko xam ne ma ni ma ni daara ja tas na waaw wallaay ndeysaan waaye yooyu c'est la vie

waaw ndax personnalité ak dignité lu koy yàq dara jaru ko waaw daana kon nag ñu ngi gërëm ñépp ah soo na ki nekk ñi mu àndal ah, ni eh, mbokki boppam yi ñu di ko wéttali te mel ci moom tabarakallahu ni ñu mel ci man mu jaral leen lu nekk waaw ah, bu ñu gisee ñun ñaar sax ñoom ñëpp seen rangoñ yi dafay wadd waaye fekk na yàlla koy def waaw yàlla koy def nit ñi dañ dul xam lu xew waaye yàlla day organiser boppam waaw maa ngi koy nettali soxna kinne bi góor gi moo ma ko mos a wax ni ma musaf ma ni ko la bayka mu ma mag yow li ñu bokk dafa bari waaw keroog la ma ni ni nga mel ak soxna kinne bii ma ni ko ah mu ne ma noonu la meloon ak soxna Umu Kulsum waaw waaw. waaw waaw ok waaw incha allah. ba na kon nag moom lépp cëram la moom na ko ci cadre deret waaye moom na ko itam ci tedd ngay boppam waaw boo ko defee itam ñi moo am nii yépp kenn ku ci nekk oto tabarakallahu ba ci doomu boppam yi def leen di protége ci façon boo xam ni sax la mu cee def man mënuma ko waaw wax dëgg yàlla léeg-léeg xale yi war a dem fenn sax mun ma te nga bàyyi ma gunge leen ndax eh, dañu di xale xamaguñu yu bari may seen yaay may seen bàjjan nga bàyyi ma yóbbu leen waaw wa tabaarakallahu waaw atax kon nag ñu ko sant mukk lu tey waaw ah dañu wax ni la télévision mauritanienne ñoom itam ñu ngi fi ah, di couvrir gàmmu gi nag ñu gëm ah, gërëm leen te sant leen tey ñaan yàlla ñoom itam yàlla defal leen ndam ci seen liggéey fa tabarakallah ah sama mbokk bopp bi nag ndeysaan xaaju ah, Moussa Gueye waaw ah, imam ah man xaw ma foo nekkoon sax ah démb ba tey maa ngi lay wóotlu ah ñu ni ma ñëwoon nga fi ma téléphoné tulu téléphoné lu ñu ni xaw ma da nga rañaan ci asamaan si xaw ma ah, <laughs> et que boobu ma bëggoon da nga am mission bu ma la bëggoon a chargé la ñu waxtaane woon waaye ba mu naree tardé rek ma mujj wax Cheikh mu ànd ak délégué ñu dem doxi ko ma bu ma la gisee ñu rendrante compte incha allah ba tax na kon nag eh, xawma lu neex du doy lañ ko wax xaw waaye ma defe ne lu baaxatul doy waaw kon nag yal nañu yàlla di bay lu baax ñiy dem yépp yal na leen yàlla may yoonu jàmm dañuy ñaan chauffeur yi rek ñu daw dawalu ndànk yóbbu nit ñi ci ndànk waaye am na ñoo xam ne xëy na demaguñu léegi ñu ngi fi ba suba bu rek ñu teel a dem ci waxtaan bi teel a yeewi nit ñi ndax ñu bañ fi yenn ndax coono yi dafa bare gàmmu tabaarakallahu bu dee benn waxtu sax ñu ñëw rek ñaanalante ci barke yonent bi doy na waaw ndax li fi sunu góor gi wax at yi mënuñu ko jeex waaw nañu dellu foofu rek ñu nafar waa yiñ fi wax yëpp ay kasaawa kasaale rek waaw loo xam-xam bu dem fenn moom li mu daan wax moo ñuy jariñ waaw ndax na tabaarakallahu yal na yokkal leen sutura sama mbokk male nag ñuy wax Cheikh Diop Kër Ngunta waaw hmm. waaw allah moom de am naa ci lu mat ñett yuñ ma ci binde waaw ñu wax ni Serigne Ousmane Mbacké waaw di doomu sëriñ Modou Kara moom itam tabaarakallaahu ah ñu ngi koy sant sama doomu bopp la wax dëgg yàlla waaye itam ma seedeel leen itam sëriñ Abdou Aziz Mbacke Fadal Mbacke musuma gis ci àdduna ku baaxee noonu ngeen jotalal ma ko kilifa gi te ngeen jotal ko ko moom itam ndax itam tabarkalla dafa am lu nga xam ni dafa jafe Comme ma taseeg moom orma bi teranga bi woyef gi bi may jóge voyage bi di jóge Paris dañu tase ci salon bi mu seen ma mayor benn carton bu nga xam ne mu fëx fi mu toogoon ñëw nangu carton bi ma ne ko waa sëriñ lii nag mu ma dootoo ko gàddu de ma koy gàddu mu ne ko sëriñ carton bi dafa diis mu ma ah waaw bu diisee kay ci la gën a wax wax carton bi moo ko Paris ba ñu ñëw def sunu scale jóge di ñëw Dakar vers deux heures du matin moo jël kii bi booleeg boppam ak manteau bi mu yoroon boole ceeg ndeysaan benn genre montre boo xam musuma gis ci waaw mu ni ma yii yëpp sama addiya bopp la waaw ma xam ni nag lu mel noonu seede ko gor yi dégg ko dafay rafet waaw ndax wax dëgg yàlla mësul yem foofu jamono bu ne bi Baye Omar Samb daan dund day dem jënd lu ne dem jox ko Baye ni ko joxal ma góor gi ndax mooy sama baay ba tax na kon nag dina rafet kon ma wax leen loolu bu ko defee dañu wax ni

ak yéene bu sore maa nga am nu ma yéene pour ndax ndimbal na ca fekk loxol boroom parce que yéene kenn duma ci jiitu incha allah waaye ñoom ñu ñaanoon ni rek nañ leen ko yégal pour fu ngeen ko yége xam ne loolu la ndax ñi yónnee pour wax ni nañu jàppale Mourchid TV dafa bari alaaji Moustapha Cissé bii nekk Pire bi ma ci yónnee lettre bu day ni de content ni ma na ngeen ko encouragé parce que programme éducatif yi ñuy jox nit ñi loolu le Sénégal soxla mu ne ma na ngeen ci taxaw lool pour télévision bi continuer mission quoi wax ma ci lu bari barki démb benn directeur wu banque moom it wax ma ci la même chose ni ma même ñun sunu domaine yi ñuy liggéeyee léeg-léeg am ci émission yoo xam ni daf ñuy dimbali di ñu jàppale ci liggéey bi moo tax ñu ngi commencé di xalaat sax pour naka la ñuy fexe ba participer ci télévision bi waaw a na kon nag xalaat bàngoog ñoom délégué ak ñoom sëriñ dinañ ci waxtaan ak ñi ñu ci war a waxtaanal ak ñoom Malick waaw e mu ñu wax ni sama mbokk bopp bi colonel Cheikh Ahmed Tidiane Baye bu yaay médecin nga xam ni ci premier turandoo Serigne Cheikh yi la bokk gannaaw Cheikh mbay Buri presque kenn gënu jiitu ko ci nekk turandoo Serigne Cheikh maa ngi koy présenté soxna ki démb ah te fekk xamoon na ko sax waaw ba tax na tabarakallahu ñu ngi koy gërëm bu baax ñu wax ni maam Abdou Aziz Sy bu Serigne Mbaye bu maam Abdou mu ngi ci biir jataay bi waaye sama doomu bopp itam di doomu Cheikh Omar bu Serigne Moustapha moom itam mu ngi ci biir jataay bi ñoom ñëpp bu ñu paree dinaa leen gis léegi nuyoog ñoom incha allah da di xale yu am cofeel am yitte ku daja am rek deysaan ñu ñëw teew fa ñoo ko defee ñu di leen bàyyi xel bu baax a baax incha allah eh. mu mel ni kon nag di kayit yiñ ma joxoon ci wàllu nuyoo yeeg ak euh, cant yi yaakaar naa noonu la toll incha allah e képp koo xam ne dañu la fàtte xam naa kenn du fàtte sa bopp sax ah léeg ma wax ko soxna ay sëtu ma ne ko léeg dara xew sax ma bañ la tudd waaw parce que nit ku nekk dafa am lu lay doy waaw ah. ndax sawda bint zuma dafa sëy sëyati sëy sëyati waaye jëkkër bi mu mujj am ñuy dem al hijratul ula ila al habasha mu ànd ak jëkkër ji dem ca hijra ba nañu naka la ñu yegg ca hijra ba jëkkër ji murtad wëlbatiku nekkaat chrétien fase ko te fekk waa këram xatal ko ndax gëm gi mu gëm yonent bi waaw ah. ba ñu demee ba yëgg foofu nag ñu yëgal yonent bi ni ko sawdakat boroom këram jéggal na ko te borom këram wëlbatiku na nekkaat chrétien yonent bi dafa yónnee ci Najaasi rek ñi jël na ko soxna waaw te fekk boobu âgé na bi mu ko jëlee tuuti rek mu jël Sayyidatna Aïcha te Sayyidatna Aïcha boobu six ans rek la am donc bi muy consommer mariage bi sax dafa xaar ba mu am 9 ans ndax mu gën a dëgër tuuti naka la jël say det na Aïcha tuuti rek Sawda ñëw ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ñu defoon ni dafa mer ndax yonent bi booba itam lu xew rek mu ni kër Aïcha waaw ku ko laaj fu ma lay fekk mu ni kër Aïcha waaw waa am ci ñuy commencé di naan waaw góor gi moom nangam nangam waay bi sew da ñëwee nag ñu defal ni dafa am lu ko metti mu sukk ci kanamu yonent bi ni ko da baax rek da nga tedd rek ni xam nga man ak sama mën mënal lu ma la dara mu ne ko te Aïcha yi nga jël nii moo ma gën di xale moo ma gën a mën a toppatoo nit kon nag doy na ma ëllëg rek bu ñu ci biir liste bi bu ñuy liir sa soxna yi rek ñu boole ma ca honneur boobu doy na ma kon nag sama ay ak bosam yépp na jël ndax man ku la mën a toppatoo rek man moo ma gënal waaw waaw wa tabaarakallahu yonent bi ñaanal ko ñaan bu nga xam ne kenn xamul nu mu toll ba tax na am na loo xam ne ku ko yàlla sédd ba noppi la ca des wis la waaw bu ko defee góorgóorlu rek wax danaa ko indi sax suba ci waxtaan waxtaanu bëccëg bi ci waxin bu Seydina Omar wax ak yonent bi wax ba rafet lool waaw dinañ ko indi ci waxtaan bi bu ko defee rek am na ku nga xam ni ni ko baykatim Touré bii di waxee ñëmu bëtu ñépp lañu waaw moo tax loo am ci ñoom rek sante ko yàlla te yéene keneen it rek lu mu ca tabarakallahu waaw ndax yàlla leen di bindee noonu ndax ndegam jinne yee xëccoo ma sax nit ñi waaw ma nit ñi dafa ci am jinne yoo xam nag seen fiirte dafa ëpp waaw dafa ëpp dañoo yàq rek dañoo yàq rek waaw ndax fiirte waaw na tabaarakallah yooyu yëpp lu fi jóg waaw ci ci sunu ndono maam yi la léeg-léeg soxna kii ne tooñ ma sànq moom mooy tooñ ni ma waaw ma yéen seen kër gi lu fi xew <laughs> ma ne ko lan la mun waaw waa kër maam Matar Penda yaa ngi ñuy bëgg a rey ma ne ko acca ma man ñu fëgg léegi ah, fëgg ba ma ni entré ah dafa ni nit ki dafa déggul entré bi ma ni entré ah jóg ubbi bunt bi gisuma kenn te maa dégg euh, fëgg bi mu ni koŋ ah waaye may bëgg lii lan la ma ne ko yàgg yàgg ñoom ànd <laughs> yow mii lañu gunge si dafay réer ba daanu ci suuf ndeysaan xam nga rek kër yu mag yi lu nekk fay xew lu nekk fay am ndeysaan daan na tabaarakallahu sant yàlla rek day ndeysaan mu ngeen xamoon li ñuy daj pour protéger leen xamu leen ko sax ndax ñoom dañu garaaw waaw waaw dañu garaaw moom mi xam na ci dara dañ ci am benn maam waaw benn jabaram bi nit la mais beneen jabar bi jinne la bu kii moomee bés bi keneen ki mooy moomee bi ci des jabaru nit bi nag wóoluwul góor gi naan ko li ngay def ci néeg bi daal danaa ko toppatoo ba xam lan ndax man fekk xamul jabaru jinne bi xamu ko bu ñu waxee rek nga naan damay werdi ci néeg bi werdi gi rax na waaw waaye danaa ko toppatoo lenn bis nag mu ñëw sonal ko ci fekk ci néeg bi ndi ko xool néeg bi gisul daal lal nañu lal bi ba mu jekk waaw mu ne waaw dëgg-dëgg nag wax ma nag loo fiy def mu ne ko sa wujj moo fii fanaan si mu ne ko man ak wujj mu ne ko waaw waxam mu ko fii lay toog xar ko ba mu ñëw mu ne ko déet te ngaa bàyyi noonu mu ne ah déedéet nag kay dama koy xaar di pànk pànk lu góor gi ni ko xam nga nu ñuy def mun ne ko waaw ah, ko xam nga lu ne di seet ba xam ba noppi moo gën a baax mu ne ko waaw mu ne ko dangay jël sa gënn gi ngay wale nga tëral ko ci kaw lal bis sangu ko sëru dënk bu sa wujj jinne bi ñëwee rek ma ne ko sa wujj tëdd fii mu def noonu jël gënn gi ñu lal ko ci kaw lal bi daal koy sang sëru dënk moom mu dem ko demal tok sa nek nak nga xaar ba xam luy resultat bi nek la wujj jinne bi ñew rek ni wax ku tëdd ci lal bi mu ne ko sa wujj fi tëdd mu dóor ko ben xet rek genn bi yeb def def su nguf mu dal di mer gent nit du fa fanan dem ni ko yaa ngi may yaa ngi may foloowaay ni ko gënn la mu dem wooye soxna si ne ko kaay mu ñëw ne kaay xool bu doon yow waaye dafa mujj tiit na ca ñetti fan waaw ah, ba mënul lekk sax day sàmm moo tax nag teey te léeg-léeg ñu sañse nag ba nga defee ni nit la ñu fekk duñu nit ñoo koy def noonu te dañu doy waar dañu garaaw dañ lay topp ci lu ne waaw loo dugg boo bu ko leen arrangé wul sax ñu yàq ko waaw waaw waaw te ñuy def lu ne façon bu ne bu ne bu ne ndeysaan góor gi def la ci daan wax yu bare ndeysaan ba benn bi sëriñ pap malik di ko laaj naan ko waaw ana bi daan déranger sa biblo yeeg yooyu mu ne ko ah, léegi nag mag la léegi takk na jabar léegi dootul def euh, tracasserie yi mu daan def ak yooyu yëpp bàyyi na pour wax la am na ñu nga xam ni ci lépp la ñu séddu

foofa laa ko gisee yaayam dénk ma ko waaw wa tabarakallahu waaye fekk na yaayam itam mu ngi nii xam na yéeneem yépp la mu ca bëggoon loolu la wa tabarakallahu yàlla dogal mu dem aux états toog fa fukki ba soog a dellu yàlla def ko lii am am incha allah muy góorgóorlu nag di def li mu man bokkam yi mu am di ko ci jàppale waaw fan yii yëpp mu ngi naan ma soxna Kiné daal mbaaxam ëpp na waaw mu ne ma ndax mbaax mu ngi commencé ci xol bu rafet mu ne ma te soxna Kiné xolam dafa rafet wa tabaarakallaahu waaw wa tax na tabaarakallaahu kon nag yal na yàlla dolli ñëpp sutura kenn ku ci nekk sa xalaat sa yéene yàlla xam na ko yal na yàlla suqali ñëpp yal na yàlla aar ñëpp yal na yàlla taxaw ñëpp ci barke yonent bi ah kon nag heure bi jot na jotul sax waaye bu doon benn waxtu it baax na sama mbokkum bopp mi itam def di sama dëkkandoo ci daayira bi la bokk ci njaboot gi la bokk sama lépp la bu ma ko tuddul woon it du aay waaye ma tudd ko dafay rafet muy Cheikh Tidiane Ndiaye bii ma bokkal cité ba ci Aliou Diène wax dëgg yàlla bu ma dëkkee Alia Dieng yàlla ak moom la ci taxawaayam ak ci ay conseil waaw mu mel ni soxnaam itam moo moo fan ne ñoo yore daayira ba foofa day kumba bu ko defee moom itam ñu nuyu ko te sant ko te encouragé ko fa tabarakallahu xam naa daal comme lu baax du doy xanaa ñu nuyu sunu doom yi rek di njabootu soxna Kiné yi mu di leen ñaax di leen encouragé ndeysaan ci yéena bi ndeysaan muy wax Fatima naan ko de bu leen xeeb seen ñaan ci seen baay de leen ko ñaanal lu ngeen man ah yàlla di ko mottalil yéeneem fekk moom la muy def moo ëpp fa tabarakallahu kon nag yal nañu yàlla boole yiw yëpp yàlla boole ñu sutura yi le bolé ñu tawfiqi wa fa tabarakallahu le gor gi waxon rek mo am solo ku naxul sa kilifa yàlla bolé lak ñu la dul nax wa kon nak yàlla bu ñu nax suñu kilifa yàlla bu ñu yàlla bolé ñu ñuy nax inshallah ñu ngi gëreem nak sunu bayu daayira yi di gërëm itam sunu yaayu daayira yi di gërëm itam wa comité permanent bi di ko seedeel sëriñ mu responsable de rawatina superviseurs yi ñépp nag ñi ci Sénégal ña Mauritanie ña nekk Gambie ña Côte d'Ivoire ña nekk Afrique du Sud ak ña nekk Gabon ak réew yi ci des yépp ñu ngi kenn ku ci nekk ci taxawaayam ak jàppam ci liggéey bi di itam gërëm waa États-Unis ñoom Moussa Kane ak ñañu fa am ñëpp fa tabarakallahu waaw ay sant ko defee di leen sant ñoom ñëpp waa commission yi yépp kenn ku ci nekk ak sa taxawaay ak cellule yi ba ci cellule des cadets ñi nga xam ni ñoo doon def symposium bi ñi ci def ay cours rawatina sunu mbokk Bachir Ngom bu góor gi El Hadji Rawane Ngom ak Cheikh Tijane Sarr bi nga xam ni mooy directeur institut bi fa tabarakallahu ak waa firqatu tawfiq bi nga xam ni ñoo def concert bi bégal ci njaboot yi fa tabarakallahu ak itam xale yi nga xam ni ñoo ko doon seqaat ñoom te ñu di leen former par ndànk-ndànk ñi nga xam ni yëpp ñoo doon defaree stand yi ak ñi participer fépp ci côté bu ne techniquement matériellement financièrement ñëpp ñu ngi leen di gërëm di leen sant di ñaan yàlla mu yokk kàttan yaag mën-mën yi at mu jot ñu koy gën di mel incha allah ñi jàpp itam ci. walu technique abal ay matériel mo xam wa keur yusu Ndour la mo xam ñi ci dess la kenn ku ne na mu meuna participer participer nako xeyna bu subaa khalifa ak malik danañu ci jaar wax yoyu yep inshallah allah ñu bëggoon a te nuyu sama goro bop bi Seydou Dramé mooy magu Aïssatou Dramé bi ndeysaan dafa jóge voyage ñëw ñu fekkee si gàmmu gi e ma war a gisee ak moom sax incha allah kon nag ñu ngi sant ñëpp ci biir ci biti waaw e kon nag caméraman yeeg preneur de son yeeg ñëpp kenn ko nek ci façon bi ngay défé sa liggéey ci télévision yi ñu fi tuddu yépp wa dëgg yalla ñu dañuy jappalé ci liggéey bi ñu am sunu télévision bopp teewul tey lañu gën a jàpp ndax loolu moo sincère ci ñoom kon nag ñu ngay gërëm kilifa yi nga xam ne ñoo fi yabale tey ñaan yàlla yàlla sàmm ñëpp te yàlla avancel ñëpp ci barke yonent bi sallallahu alayhi wa sallam waaw kenn hmm. hmm. ah, wallaay hmm. ah xam na moom lu la jege ba mu ëpp wallaay ndeysaan Euh, sama mbokkum bopp mi ndax daf ma jege ba mu ëpp mooy Serigne Fadal Mbacké waaw ci rek topp waxtaan beeg euh, rythme bi ndax moom daf di suma wéttal waaw lu jot dafay ñëw di ñu reeloo rek waaw dafa mën reeloo ba nga xam ni bërki bi ñu nekk ci stand yi di wër di wër wër wër coono bi jàpp ba ñuy jeexal si ñëw ci ay sand bu ñoom soxna kinne ñuy génne sandwich ak ay yu sedd dañu ko jox mu ne stand bi ngay jël coupe bi nag waaw <laughs> mu ne sëñ Moustapha bii daal moo jël coupe bi ku yóbbu jox leen ko ndax bëccëg ba léegi kenn lekkul <laughs> dañuy réew ba bëgg a dee nit ku baax ndeysaan yàgg ak ñun mu ngi koy fàttali démb ni 1983 laa njëkk ñëw Tiwaawan te ba may ñëw xaw ma fa kenn mu ne waaye boobu Serigne Cheikh ma saf ak yow may ñëw di wëraaloo rek di déglu gàmmu yi nii ba yàlla boole ma ak yéen wallaay ndeysaan ba tax na kon nag ñu ngi koy gërëm bu baax a baax ak Cheikhouna Mbacké bu Serigne Saliou fa tabarakallahu hmm? góor gi Abdou Bousso Dia aussi ñu gërëm ko moom itam sama lépp bopp la waaw wa tabaarakallahu ñoom ñëpp ci yëf yi lañu bokk moo tax tolloog rek léeg-léeg yëf yi jàpp la ba nga xaw a fàtte tuuti waaye ñoom ñoo ko moomal seen bopp ñoom laa waroon jox sax ñu sant gan ñi ndax ñoom ñoo moom xew-xew bi waa moo tax na kon nag ñu ngi gërëm ñëpp ñu ngi sant ñëpp ah bu fekkee dafa am ku ñu fàtte mu bal ñu eh, kon xanaa ñu bàyyi ba suba ci onze heures rek bu fekkee ñëpp noppalu tuuti xanaa ñu daje doonte trente minutes moo tali niñ ko daan defee rek ndax loo daan def mu jig la nga moo taliwaat ko waaw ñoo nga defee tabarakallahu eh, soo nekki na nga santal ñu sa yu baax yi nga àndal yëpp waaw te bo pare nag may ma mbuubu bi yow da ngay naxaati waaw baax na waaw da ko waroon def ñaar boo xam ne góor daf koy sol bu bula bu rafet nii waaw waaw waaye danga ma nax nag fan yii da ngay sol sama genre yi ba na fi nekk tey da ngay sañse waaw gis nga man yëfi ndongo rek laa sol waaw mook la maison tudde na ma ko kon fa tabarakallahu jërëjëf si Malick bii ma sol nii sa doom ba nga waxoon ni ko yaay sama doom te mu àndoon nag sa doom yii dañu daan leen invité ca Maroc ñu koy wax Nogay ndax dañ ko ne noo tudd mu ne man Nogay laa tudd moo ma yónnee bii moo ko ñawal boppam ak beneen ndeysaan ni ma maa ko participé ci gàmmu gi wallaay ndeysaan ba tax na tabaarakallaahu kon nag ñu sant ñëpp kenn desul moom daal yëf yaa ngi noonu yal yàlla defal ñëpp sutura yàlla defal ñëpp teranga nañu jàng ku nekk fatiha ak falaqi ak naasi ak juróom-ñetti lii laa fi quraychin ak salaatu ala nabi bu waay man rawatina salaatul fatixi ñu jàng ko def ko hadiya yonent bi sallallahu alayhi wa ci guddeem gi ku ne yaa xam li ci sa xol yal na yàlla rekk saytu ko defal la ca la la gënal te mu bañ a yàq ci sa mbir dara da nga avancé ila yawmil qiyaamati góor ak jigéen ñu ñaan ko Okay. yal na yàlla nangu incha allah jërë ngeen jëf incha allah